góor si yoog ñamu fal seen jiit la ñëpp nangul moy Cheikh mod Lamine bara jàngal na ak njabotam yar len ci diina ñu xam mu kastelem soga dem mom Cheikh mod Lamine bara tawam balay njëkk lim mo doon lu mbóot ñu lam jambar la ñëpp bako xam mom Cheikh mod Lamine bara muhammadu di turam Modou Baara leen gën a niin fees na barkeeki ndam rakkam ja Abdoul Aziz jël yan ba duy ba fees ndax géeji leeru ci la xuus ñu ba xëy di Serigne Daara jàmbaar ja Serigne Cheikh Mati lay jël waar ba farlu bay ndax moom ci Bamba rek la xuus ñu ba di serin Daara Mbàkke te yaa di ab yaa di ab xalifaam yaa doon lu Bamba sa maam sunu yoon wi yaa di imaam yow Cheikh Sidil Mokhtar ku yàgg jëf la bu wér. bu yàggee muñ la ñu dër moo tax mu fees ak cër moom Cheikh Sidi Mokhtar njaboot gaa ngi nii tey wel nan fi yow di la roy sunu gont ak sunu xëy yaa ko moom Mbàkke mu yaa di Mokhtar sëriñ bi nee na na ko déglu mu sànni ay kàddu salaamaaleykum. Cheikh Cheikh nee na ma ngi nuyoo bu baax. Serigne Khadim Lo Gaye del nee mi ngi baax. Serigne Khadim Lo Gaye del nee ginnaaw bi mu tuubee ba noppi di mu tuubal Serigne bi. nee na Mbàkke di la jéggulu mi ngi lay ci yëngu-yëngu yi. nee na lépp mbàkke ci sag ñaan ñaan gu nangu rek la. nee na mbàkke lépp yow la. nee na tey nag sag njaboot. say taalibe. ñu la yaakaar képp. addina. ak alaaxira. ñoo ñëw mbàkke tey di siyaare si. di ñaan yàlla mbàkke nga yàgg fi lool. nee na ñu ngi delloo yeesal sunu njébbal ak sunu taalibe nee na Mbàkke ñu di la xamal ni réew mi muy góor nee na muy góor muy jigéen nee na Mbàkke yow rek lañ bëgg yow rek lañ bëgg nee kon nag nee na mi ngi sàkku mi ngi sàkku ñaan mboolem seen nee na Mbàkke jërëjëf ca ànd yëpp ci biir am na ñoo xam ne sax bëgg nañ ko sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax diir ba ñëwee ci moom jox ko sa bopp fekk mu toog jotaayu Cheikhul Khadim boobu ba léegi li nga xam ne moo war ci diggante ak taalib ak sëriñam war ko yëpp yaa ngi koy matale te war nañu taalib yi ak moom yi sax ci diggante sëriñ bi. di ko nemmiku soo amee at yii dañuy tudd te loolu saa su nekk fekk nga ko fa loo am andil nga ko kon ñu ngi nga xam ni dañoo ànd ak yow dañu doon sëriñ bi leen seereen ngeen ko jox na ko sëriñ bi kon ñu doon sant leen gërëm lii nga ko wax nag ñu doon Sénégal yëpp lu bëgg góor ak jigéen moom it noonu rek la leen bëgg loolu rek la leen di ñaanal war rek di gën a sax digal ak pour bañ yi ndax day faral wax ni bu ngeen day gis ma leen di digal ngeen sax ci ay ndigal ak i tere day fekk ne ay ndigal boo ci saxee lépp li nga bëgg di nga dajeeg moom ci ndigal yi soo moytoo tere tam lépp li nga ragal di nga ci mucc ndax doo ko fekk ci tere ya kon mi ngi sant bu baax di gërëm dafa débordé waaye lépp ak ñaan ko nangu la di ñaar rek ngir yàgg koo liggéey yàgg ba sàll xam ne jërëjëf